benn not mais fàttalikuwuma nag baal ma yow mi ko bind fu ma waxe woon loolu mais mën na nekk nag mu ni dafa am bés mu déglu ma ma am bayt bu ma askanale Euh, abu yazid al bastami te fekk xallaaj moo ko moom mu ni ndax def naa ci attention yàlla xam na ni fàttalikuwuma ko même bu amee sax du bàkkaar sabqul lisaan la سبق اللسان دفع يام سبق القلم دفع يام واو آه. آه. بوكو سيتي نيسان دوم سخنة بالروج دوم سخنة موي إمام سيوطي تدال نكو باسكو جي شرحان بي bayt bi mu ni daf ko bëgg féetale jariir jariir waxu ko waaw njuumte la boo xam ni kenn du ko ci bindal bàkkaar parce que boppam ba la ca nekk ci ay bayt ak i phrase ëpp na téeméeri million di jàllar bi ko rek kon moom kenn du ko jàppe sabqul lisaan mënul nekk kenn du ko jàppe sabqul qalam mënul nekk waaw wante itam li Maodo waxoon ba muy bind ba muy bind arudam ba te ndeke am na bayt bu ci damm te yëgu ko mu ni muy yéen mas ngeen gis kuy jàngale arud te fekk sa bayt loolu dafay am amul solo xale bi ma doon tudd léegi Khalil ibnu Ahmad wax na ko nee na orateur am na luñ koy baal nee na orateur koo xam ni da ngay wax te doo xool kayit ne am na luñ la war a mën a baal nag moom moo ko waxal boppam moo tax juum juum yooyu ba ni suyuut yi jëlee wax bi jox ko jarir te jarir moomu ko العوام الشيباني moo ko moom waaw waaye dafa fekk yëf yi jaxasoo ci boppam jaxasoo jaxasoo jaxasoo jaxasoo yooyu du bàkkaar waaw yooyu du bàkkaar amul benn solo waaw te Suyuti yi ku ku amul morom la ci doomu soxna yi moom la ñu tuddee Abdourahman Sall Abdou Si moom lañ ko tuddee waaw ndax mag ñi dañ ko fonkoon moo defar tashjir benn méthode la bu nga xam ne moo ko génne boo bëggee jàng langue étrangère ci ci fukki weer ak ñaar pour dégg ko mën nañ la ko jàngal ci ñeenti weer nga dégg ko méthode bu am solo la mooy jur pyramide yi ngay gis ci télévision yi ak chiffre et lettres yooyu yëpp tashjir a ko jur imam Suyuti moo ko génne may ko humanité bi waaw mais tey li ko tubaab yi jariñoo moo ëpp li nu koy jariñoo parce que ñun ay primaire lañu ñun ñooy arab yi léegi ndeysaan wallaay ndeysaan ñun ñooy arab yi pexe amul ay primère piir lañu yu desul dara mu nu yeboon nangu ko rek te jàpp ci yàlla billaay moo gën pexe amul